bi ñuy door fukk ak juróom-ñeent lañu ci photo bi ñu ci wane déggoo ak juboo tënk ko ci fukki poñ ci seen charte bi élection locale bu janvier 2022 bu mu ñëwee dafa wane seenug efficacité ci opposition bi ñoom ñu gagné dëkk yu mag ci biir élection yi. beneen bi mooy élection législative yi. daanaka juboo gi dëppoo. lu mu mayul Macky Sall ci boo xamee ni dafay def lu transparent wala lu dul dëgg lu dul yoon du ko maslaaw ak moom du ma maslaaw ak beneen doomu aadama. li nga xamante ni mooy seen charte fondamentale doon wane ànduk politique ci seen biir ñoom ñu dem ba féewaloo. pour sein de notre coalition nous devons aussi dire que force doit rester à la charte. dégg naa ñu ne Ousmane Sonko dictateur la dafa génne nit ci ci groupe WhatsApp bi groupe bi man maa ko créé. ku ci wax lu dul noonu dama ko ciy génne. ñaar fukki parti ak mouvement politique yi sosoon Yewwi Askan Wi juróom-ñetti génn dem muy crise bu njëkk crise boo xamante ni sax moo laal dëggu kenn ku ci nekk. que ñu nekk dans l'opposition am un projet tabax écosystème ba nga xam ne ñu Yewwi Askan Wi ba ñëpp ñu bëgg am ay comportement yoo xam ne waa kër Macky Sall sax duñ ko def. charte bi wax ni fokk mu am ñoom ci lu ñu tënku. ku nekk mën nga dem ci élection présidentielle yi wante loolu. kenn gisew ko neneen ak sa moroom. nit bu ngay woo une heure du matin. mais yaa ngi yëgal ci lu nga nekk. communiqué bii nga xamante ni conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi moo ko signé Khalifa Sall bokk ci ñoom ñu ci wax képp koo xamante ni dem nga wax ak président Macky Sall daanaka bokkatoo ci seen ay mbir ci dialogue politique bi Yewwi Wi di wéy di dox xamay jafe-jafe fi mu ne nii nag mu ngi dem wante dafa mel ni dialogue politique bi nga xamante ñoom nee nañ ci dem moo leen mën a boole wala mu féewale leen